dëkk bi am ndox ñu dem euh, bi ñu agsee ba kër sëñ Touba Abdou Lahad Kani moom mënut a dem te sëñ Bass ne woon na ko. Mhm. am na lu ñu war a waxtaanee ma ak yow waaye lu mu guddi guddi du ma ñibbi dinaa la xaar ba nga ñëw kon sëñ Bass boobu dégagé na responsabilité dim fu mu war a taxaw fépp taxaw na fa. Mhm. Abdou Lahad Ka ñu ñëwaat ba kër sëñ Touba mu ne circulation bi dafa bari te am naa yu ma war a lijjanti fii kër sëñ Touba mënatumaa dem. boobu man maa ngi dox maa ngi taxaw ak dëkk bi ñu xati aw mu benn pexe pour pour dem Abdou Lahad ñaari junni saa bu ma waxee dinaa ko leeral génn ñaari junni jox ma ne ma am paas ci mairie bi la yor war nañoo mën a jox sax ay oto ñu dem dox yi loolu. booba itam sunu poche ma ko ñu jël taxi fay ko 7000 francs wàcc ca wetu forage ba ca magasin bàyyi daal. la ñuy gaaw gaaw bañ àggee fekk nañ sous préfet ñëw fa ànd ak mut jóob jawbe anañ ki gis wan yi ñu tëj ñang ni bërit ni ko maa ko gis mënu ko duggal mu ubbi bunt bi mu dugg mu dem. suñ gaa yi jël taxi topp ca yaakaar ni ca forage ba lañ jëm wala dañuy xooli wan yaar ndax ñoom bëggoon nañoo dugg sax ñu leen soxlawuñ leen kii rek lañ soxla daal di yóbbu ko police ma taxaw ca forage ba vingt deux heures suur boobu def naa ci sa benn kii may woo ñan mënu ma ko jot ndax it boobu mi ngi police gannaaw bi laa ko woo mu ne maa ngi nii kóorin léegi la ma gaa yi soog a bàyyi dañ maa téye woon ci police bi ko ndax lan mu ne sous préfet moo ne nañ ma téye ba màggal di jàll ah ci a dénoncé waaw nañ ma téye maag di jàll nee na nag commissaire ne ko kii du ma ko téye nee na xaw nañ maa pamte pamte su mu sama yére nangu sama téléphone du ma ko téye kii li mu wax nit dañ ko war a gëstu gëstu ñi ko def lañ war a téye te effectivement loolu moo war a am. mais mais mais euh, sëñ Moussa ñu dem ba li nga expliqué dafa garaaw ñu dem ba daanaka ñaari fan des. ñaari fan moo des ci màggal gi. ñu tëj ay waan yu ñu gis te ñun. wan yi ma la wax moy yi ngiss ñun yi ngeen giss yi ngeen giss man yaa am rek yi koy jox diggante boobu la vérifier kon est ce que mëneesul japp te amna ci ay wan yo xam ne biñ ko tejé dañ ko gripper est ce que mëneesul japp ne ñàkkum ndox mi yenn say day manam tejju ko ay wan dara ko lool rek la du leneen ah, mo ne dañ ñuy tegal nan ñu forage yi moo paan nangam nangam courant amul li <laughs> dal ay fée la yu ma lay wax yo xam ni maa gis moom bakkan lay laaj bi mu ba ba ba loolu monsieur le maire ba jàppee ko yóbbu ko affaire mujjut fenn ñu màggal ba ca gannaaw su bëgg man nag bis boobu def naa benn kii ni noppi naa ci li ma mënoon lépp def naa ko wax naa ba sëñ bas jos ci boole ma ab laxat ka saafara ko ca gannaaw su bëgg sëñ bas mbul mm-hmm. ak Baye Amadou Xadim Jaxat yàlla yàlla dolli ay leeram mm-hmm. ci Touba ca kanam ne ko di jàmbaar lool dox ci ay jéego ba woolu man Mourtala ak Balla Gaye mi jiite ànd taxaw Madiana ñu ànd ak sëñ bas mbul dem ci sëñ Muntaxa سي منتخال لي خات خات ماغال دي داي ري بيتم لي نيورون سيار بابا سيغ بي داني جيل لين سين وقتو نين ليرال ما ليب لي نيك سي ندوخ مي لي نين تي خام نين وخمو نيو ليرال كو لين تي خام موني